asalaamaaleykum mbokk yu ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëwaat nañ tey ci seen fukkeelu vidéo ak juróom-ñaar muy dix-septième vidéo ci kuuru HTML ak CSS ba tey tey jii nag ñu ñëw ngir wan leen naka ngay def ba mën a dugal image ci sa ay page web maanaam nan ngay insérer ay image kon ci sa page yi nga xam ne mooy page HTML yi ngay defar kon euh, ci chapitre bi mooy dix-septième chapitre bi dinañu jàng kon nu ñuy insérer maanaam nu ñuy dugalee ay image ci sa page HTML maanaam euh, ban balise moo moo lay may nga mën a kon dugal image ci sa page HTML kon objectif yi maanaam jubluwaayu chapitre bi mooy ñu gisandoo maanaam format image yi nga xam ne moom nga moom moo e-, am format yi nag yiñ ci gën a xam ñeenti format la bi ci njëkk mooy JPEG muy format boo xamante ni am na compression image bu baax boobu dinañ koy faral di jëfandikoo lu bare bare te conseil nañ leen ko am na beneen format bu ñuy wax format PNG format boobu mooy soo bëggee dafay image yoo xam ne amul fond image transparent yi ak euh, image yi nga xam ne image GIF la GIF nag mooy pour image yi nga xam ne ay image yu animé la donc mooy tax ñu koy faral di jëfandikoo am na beneen bu ñuy wax bitmap wala PMP boobu moom euh, image yu yàgg la format image bu yàgg la sax te compression bi aussi baaxul trop donc euh, maanaam pour mu charger dafay xaw a yéex boobu moom recommandé wuñu leen ko yi nga xam ne daal moom la ñuy faral di gën a jëfandikoo ci sa site internet d'habitude moom mooy format JPEG wala format PNG GIF moom bu fekkente ni image animée ngay def kon euh, loolu moom lañ la conseillé kon yooyu mooy Euh, li nga war a comprendre déjà ci format image yi waaye nga comprendre jafe-jafe yi am ci maanaam diisaayu image yi nga war a dugal ci sa site ndax euh, comme li ñu leen wax léegi buñ ne pois rek mooy diisaayu image bi mën na nekk ay kilo octet wala mu nekk ay méga octet donc lu image bi gën a lourd rek di gën a soxla ay ressources maanaam di gën a soxla ay ressources ci serveur bi ak ci navigateur bi pour ñu ñu mën ko charger ba noppi mën ko afficher kon am na solo lool nga xam ne kon maanaam euh, diisaayu image bi kon lu joué le ci si ci page yi nga xamante ni yooyu ngay créer kon ñu fàttali ñeenti e-, image yooyu maanaam extension yooyu la ñu faral di gën a jëfandikoo moo existe sax mooy JPEG image JPEG ak image image JPEG ak image euh, PNG ak euh, GIF ak BMP donc wax naa leen léegi ni leen JPEG moom compression yi baax na lool boobu kon conseil nañ la ngeen koy jëfandikoo wala PNG nga xam ne pour nga def ay image yu euh, transparent euh, sa site nag saa yoo ko euh, defaree ba noppi maanaam boo defaree sa site ba noppi kon faaw nga louer espace boo xam ne ci hébergeur bi maanaam benn espace serveur boo xam ne foofu ngay dugal sa site espace boobu nag yaa ngi koy louer ci benn hébergeur hébergeur nag bari nañ ci àdduna bi am na OVH boo demee France boo demee États-Unis am na lu mel ne Namecheap bari nañ dinañ am cours spécial bo xam dañ daañ ko jagleel kon hébergeur yi sax waaye ngir ngeen ngeen xam rek ne soo noppee sa site ba noppi faw danga ko war a yóbbu ci eh, eh, benn hébergeur donc daal di jël li nga liggéey lépp architecture site bi yëpp daal di koy dugal kon ci serveur boobu nga loué pour que site bi mën a accessible ci adna bi yëpp jaaree ci internet kon loolu mooy li nga xamante ni donc lu lu lu lu lu mënta ñàkk waaye ginnaaw ba dañuy jàng naka ngay dugalee image ci sa ay page kon dina baax nga xam ne image bi balaa nga koy dugal faaw nga defar ko ba mu baax maanaam defar bi weesuwul mooy nga recadré waat image bi fexe ba mu am taille bu baax waaye aussi nga enregistré ko ci format bu baax ba noppi soo koy dugal kon ci euh, maanaam serveur bi bi nga xam ne moom mooy euh, bii tax ñu mën koo gis fépp ci àdduna bi kon loolu mooy li nga xam ne tey moom la ñuy dikk ak yéen ci cours bi nga xamante ni jubluwaayam bu dara lu jàngal leen nan ngeen di def ba mën a dugal seen ay image ci page web waaye nag balaa ngay dugal image faaw nga xam image ba ngay dugal ban forma mooy ba ca gën bu dee euh, comme li ma leen wax sànq format yee nga xamante ni bitmap wala BMP moom kenn ku recommandé wu leen ndax ndax ndax compression bi dafa diis ba noppi image bi dafa diis euh, ba noppi tamit maanaam image yu format bu yàgg la daal waaw bu dee GIF moom bu leen ko utile jëfandikoo lu dul ne da ngeen am image boo xam ne image animée la. waaw kon bu dul image buleen leen jëfandikoo GIF léegi yeneen ñaar yi nga xam ne nag conseil nañ leen kenn koy jëfandikoo ci image yi ngeen di dugal ci seen site muy image JPG ak image PNG waaw yooyu moom euh, moom la ñu faral di gën a jëfandikoo kon ci site yi te moom lañ leen ni kon conseiller waaye balaa ngeen koy dugal tamit na ngeen ko defar ba mu baax maanaam recadrer ko ba taay bi mel ni mu war a mel ba noppi ngeen xool naka kon euh, ngeen di def ba enregistré ko ci format bu baax. kon ñu daal di jàll rek ci benn eh, misaal maanaam exemple buy wane nan la ñuy dugalee kon image ci page web léegi balaa ñuy def loolu dañuy dem daal di wut benn image euh, ama télécharger benn image a dem ci int Google ma télécharger benn image par exemple image bi. Euh, par exemple ma jël fii benn image nature image baa ngi nii ma enregistré ko enregistré l'image su def ko ci bi ci dossier chapitre treize donc image bi ma tuddee ko mon image mon image voilà donc image bi moo ngi nii buñ jógee kon ci dossier bi am nañ image baa ngi nii donc boo ci tegee suur bi sax dangay gis mu wan la type d' élément fichier JPG donc fichier JPG la léegi image bi nag lañ bëgg insérer suñu site internet suñu site web donc pour loolu da ngay ñëw fii waa ñu ñëw ci fii ñu créer benn balise bu tudd IMG donc balise IMG balise orphanil la nag moom amul amul balise buy tëju quoi balise orphanil la moom kese moo ànd donc nga daa def IMG nga def src égal nga jox turu image bi ñu ngi ko tuddee sama tiré image point nga jox extension bi jpg donc ñu enregistré euh, le fichier enregistré sous def chapitre 17 html chapitre 17 point html léegi ñu dem xool chapitre 17 booy ibbee image bi ñëwul ñu dem xool lan moo waral ñu dem xool lan moo tax image bi affiché kon image bi mo image la mo mon donc fii au lieu de mon ma def sama donc loolu moo tax il faut nga jox ko bi exactement ni ni image bi tudd donc ñu enregistré ñëw actualiser donc gis nga image baa ngi nii donc xaa ñu dem xool image bu xaw a gën a mag tuuti xool image bu xaw a gën a tuuti taay image bi ñu jël beneen image enregistré sous ba ñu tuddee ko moo tiré une image 2 une image 2 donc mon image 2 ñu ñëw fii dugal image boobu au lieu de mon image ñu def mon image 2 enregistré ñu ñëw actualiser gis nga kon image baa ngi nii affiché donc nii la ñuy insérer image donc tout le temps balise img bi ngay def après nga def source égale donc entre guillemets nga def turu image bi point nga def extension image bi donc noonu la ñuy euh, insérer image léegi nag am na benn attribut ci balise img bu ñuy wax alt alt égale nga def fii benn titre par exemple li alt bi li nga def comme valeur li muy jariñ mooy bu fekkee image bi dafa yéex a chargé mbaa mu bañ a chargé donc utilisateur bi nga xam ne moom mooy moom moo moom moo moom moo ñëw euh, di visiter dina gis texte bi maanaam dina ko par exemple image d'une petite par exemple image d'une petite fille voilà donc loolu tey bu ñëwoon tey image bu nangul woon chargé ba mu yéex a gis texte bi rek la lay bindal def image d'une petite fille waaye comme que image bi chargé na moo tax doo gis kon li am ci bi waaye ñu wax leen attribut bu am solo la boo xam ne saa yu ngeen insérer image rek conseil nañ leen ngeen koy yokk maanaam attribut alt beneen bi topp ñu ñu jéem a essayer def benn ci kanamu image bi pour xool par exemple ma def fi benn h1 fii nga def insertion d'une image sur ma page par exemple bu la neexee donc kon avant image bi nga def fa texte donc sama actualiser ngay gis ne indi na texte ba pare image bi soog a ñëw su ma neexoon tey après image bi tamit ma def fa texte par exemple ñu jéem a def foofu benn paragraphe après image bi ñu créer benn paragraphe paragraphe ak balise B léegi war ngeen ko ndax lu bare depuis ñu commencé HTML ba léegi ñoo ngi créé ay ay paragraphe donc ñu créé benn paragraphe image insérée image sur ma page web donc ñu jël paragraphe bi kon gis nga après insertion image dañ def paragraphe bi donc bu actualiser kon gis nga soo wàccee da gis ne texte bi moo donc am nga possibilité tamit maanaam au lieu que ngay télécharger image bi ndax gis nga fii bu ngeen xoolee image bi dafa nekk ci même dossier que suñu page web bi donc boo koy insérer da koy daal di jox directement euh, no image bi léegi bu fekkoonte ni dama créer beneen sous dossier beneen dossier par exemple def ko mais images mais images ba noppi dugal foofu photo yi da gis ni sama page dootu ko gis donc sama actualiser dootu ko gis gis nga donc gis nga li image affiché wu donc lii mooy alt bi léegi pour mu gis que il faut que ma dugg ci dossier bi tudd mes images ba noppi soo gis image yi donc ba tey damay ñëw fii ne ko balaa ngay affiché image bi duggal ci dossier mes images après soo ko affiché kon image bi donc lii mooy dossier bi image bi nekk donc image bi moo nekk nii nag moo nekk ni ñu enregistré pour xool enregistré nañ actualiser voilà mu soog gis image bi donc loolu mooy lu jëm ci wàllu insertion image bi nga xam ne dañ ko bëgg dugal ci suñu page web mais bu dee image boo téléchargé léegi bu de image boo xam ne directement ci internet bi la nekk comme par exemple bii gis nga image bi la bëgg insérer au lieu ko ma koy téléchargé mais dama bëgg directement rek jël lien bi bi nekk ci internet bi xaaruñ jël sax beneen image pour mu gën a leer ci yéen wala ma jël par exemple beneen image euh, ma jël bii voilà image baa ngi nii waaw donc image baa ngi nii euh, nga jël lien bi gis nga image bi fii la jeexe gis nga jp point jpg kon nga xam image bu complet la donc nga copier lien bi yëpp copier lien bi yëpp ñëw fii am href au lieu ko nga def image bi nga télécharge nga def lien maanaam image bi fi mu nekk ci internet moom ngay copier rek collect ci biir source donc su ma ñëwee ma actualiser su ma ñëwee sama ma actualiser gis nga ne image bi da ko insérer directement donc boo jëlaatoon encore beneen image même chose lay doon ton beneen image même chose lay doon donc da ngay ouvrir l'image dans un nouvel onglet ngay cliquer après mu jox la image bi yëpp nga copier donc boo copier ba pare boo copier boo copier ba pare nga daal di kon image bi boo copier ba pare nga daal di image bi ni enregistrer enregistrer donc boo ñëwee ci page web nga actualiser da ngay gis ne kon dugal na image bi waaw image yi nag taille bi nga xam ne moom la ànd rek lay jël xam naa bu ñu duggee ci cours CSS yi dina leen jàngal naka la ñuy def ba maanaam insérer kon maanaam redimensionner kon suñu image wàññi taille nañ ko bëggee kon looñu leen indi loon tey ci seen cours bi euh, ba tey ci HTML 17e chapitre bi ñu leen jox daje fan yi ci beneen cours incha allah